masaalikul jinaan téere la bu cheikhul xadim radiallahu taalif ci tasawuf nga xam ne tënk na ci li ëpp solo ci li ñuy wooyee a tasawuf a sunni muy tasawuf bi nga xam ne ci alquran sunna la sukkandiku mag ñi njëkk ñu baax ña tàmbalee ko ca yonente bi sallallahu ak i saxaabaam ba romb ci imaam Junayd ba ci borom tarixa yu siiw ba ci moom ñëpp seeni njàngale ak seeni yar dañu ko tënk ci tasaw boobu tasawuf boobu nag la tënk ci téere bii tudd Masaalikul Jinaan gën koo sukkandikoo ci xaatimatu tasawuf bu imaam Muhammad eh, Cheikh Muhammadul Yadaali ad-Daymaani radiyallahu anhuma Masaalikul Jinaan boobu nag eh, ni ko baaxoo defee ci njaal benn wax na ca lu jiit lu jëm ci wàllu xam-xam soññee ci fonk xam-xam soññee ci farlu ci jaamu yàlla door a indi nag dégg dëgg li ko tax a jóg muy tasawuf ak la ca aju ci biir farlu ci jaamu yàlla ak nag ci law indee bunt bu jëm ci jàng alquran ak di ko jàngale ak bind ko ak lépp lu aju ci alquran rek la ci ëpp ci la ko leeral bunt boobu nag bind boobu nag ci lañ bëgg a nafar tey bala ñoo ak ci dëgg-dëggi bind bi ñu wax ne alquranul karim mooy wax yàlla ji seydina jibril wàcce ci ndigalul yàlla ci yonent bi sallallahu alayhi wa muy wax yàlla ju ñu wax ci al ci làmmiñu arab bu leer naññi woo xam ne baat yi ak ara ak xaraf yi ak maanaa ya lépp ci yàlla la bàyyi ko wàcc ci yonent bi jaar Seydina Jibril mu jottali ko nam nañ ko ko joxe dara soppikuwu ca dara yokkuwu ca dara wàññiwu ko wàññikuwu ca te noonee mu wàccee noonu la ko yàlla wattoo ba nëgëni si na ko yàlla waxe woon mu wàcc ci yonent bi sallallahu alayhi ko noonee noonee la ko ñi jote yor ko ba nëgëni dara soppikuwu ca dara yokkuwu ca dara wàññiwu ko ca wenn xaraf wu nit yokkoon ci alquran jul yëpp a eh, jóg taxaw weddi ko lu ci waay wàññi ñëpp jóg taxaw weddi lu ci yokk ñëpp jóg ko loolu kon téere bu yàlla watul boppam la inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu la xaafizun bari na ay tur alquran danañ ko tuddee alfurqaan danañ ko tuddee alkitab danañ ko tuddee azikrul hakim dañ ko tudde an nuurul mubin dañ ko tudde asrat al mustaqim moo tax alquran ci bi muy xamle alquran ci boppam nee na wa innahu la tanzilu rabbil alamin nazala bihi ruuxul amin ala qalbika li takuna min al munzirin bi lisaanin arabiyin mubin kon loolu mooy alquran wax ji wàcc wax ji jóge ci yàlla mi borom bi ndeef yi wàcc seydina jibril wàcce ko sol ko ci xolub seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngir seydina muhammad moom sallallahu alayhi wa bokk ci ñiy waar nit ñi di leen teg ci yoon ci ndigalu yàlla di yonent bi yàlla bi gën ci yonent yi yàlla yoon yépp te mujj ci ñëw te jeexal ak yonent gi al wax ji nag nekk wax joo xam ne ko wax ci làmmiñu arab leer naññ kon loolu moom mooy alquran yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na alquranu huwa nuurul mubin wa zikrul hakim wal siraatul mustaqim nee na alquran mooy leeru yàlla gu fés gi nga xam ne mooy leeral yoonu yàlla di waar gu xereñ gi di yoon wu jubbi kon tur yooyu yëpp ay turi alquran la yoo xam ne tur wu ci nekk day tegtale euh, ay ay ay meloom alquran di wax ju ñuy jàng ci aw làmmiñ di ko dégg ci ay nopp di ko wattu ci cim xel akub xol waaye wax yàlla nag muy loo xam ne jàng ko tudd ak xaraf yi ci sa làmmiñ da ci am tuyaaba ju baree baree baree bari tudd araf yi rek araf wax nga tiim alxuraan di ko jàng nii rek di ko di tudd xaraf yi eh, moo xam yaa ngi xam ni nga wax moo xam xamoo ko danga ci am ab yool ci nga leelu jàng alxuraan nag kon dañ ci jukki tuuti rek eh, yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ne jaamu yàlla gi gën ci jaamu yàlla ay xeetam ginnaaw farata yi moo jàng alquran afdalu ibadati ummati tilawatul quran wax na ne alquran day rammu day sàkku ci yàlla mu jox ko ndigal ci mu rammu ay jaam te yàlla dina ko ca jox ndigal alquran day jotli ay xabaar di ko jox yàlla maanaam day seede daal day seede ay jaam ci kanam yàlla te lum seede yàlla dëggal ko ku ko teg ci sa kanam di dox ci leer gi mu lay wan danga nga tàbbi aljanna ku ko wan ginnaaw jiital sa bakkan ak sa bànneex wala nga jiital keneen ak xalaat yi ñeneen di ca dox dem sawara alqur'anu shaafiun mushaffa wa maaxilun musaddaq man jacalahu amaamahu qaadahu ila aljanna wa man jacalahu xalfahu saaqahu ila annaar mu wax ne alqur'an képp koo ku ci jàng aw xaraf képp koo jàng xaraf woo ci jàng am ci benn te ñu bindal la ci tuyaaba te tuyaaba ji benn tuyaaba bu nekk dañ la koy fulal fukki yoon waxul ne alif laam miim benn xaraf la ko jàppee waaye alif bu ne boo waxee alif laam miim alif gi aw xaraf la laam gi xaraf la miim gi xaraf la benn bu nekk ñu bindal la ci tuyaaba fulal la ko fukki yoon man qaraa xarfan min kitaabillaahi falahu bihi xasana والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف ci ngëneel yi tam ci ne ku jàng aw xaraf ci alquran ci biir julli taxaw di ko jàng dañ ci bindal téeméeri yiw fekkee yaa ngi taxaw bi ngay julli bi ngay jàng alxuraan ci biir julli yaa ngi taxaw su fekkee yaa ngi toog dañ la ci bindal juróom fukki yiw boo ko jàngee ci lu dul ak julli nag yaa ngi ci arafu ne danga ci am tuyaaba tuyaaba ju ñu fëral la ko fukki yoon ka koy déglu it xarafum ca dégg ñu bindal ko ci benn tuyaaba kon yi xadis yépp dafa ñëw di wax ci ngëneelul jàng alquranul karim sëriñ bu mag bi radiallahu anhu cheikhul xadim bind lu baree baree baree bari di wax ci ngëneeli jàng alquran am na ay xasida yi boppam yi mu jagle ay xasida yoo xam ne la ko tax a jóg mooy wax rek ci ngëneeli alquran ci biir ay xasida yeneen dugal na ci wax na da koy taali yàgg mu dugg ci biir alquran di ca wax di ca waxaale itam ay ngëneel ci ngëneel jàng ko ci biir ngëneel yi jàng alquran wax na ci ne qiraatul quraani amnun min lain wa min shaqawatin wa min makril muin nee na jàng alquran day musal nit ci seytaane boo di jàng alquran yàlla day musal day aar ba seytaane du la jege dalay musal ci te xeet yi bokk ci ña jëm safara alu ëllëg dalay musal ci pexem yàlla pexem yàlla mooy wëlbati gi muy wëlbati mbirum jaam di ko jëme jële ci melow wu ñu rafetlu jëme ko ci weneen melow wuy safaan ba te loolu ab jaamay tooñ boppam ba tax suñu boroom fexeel ko maanaam soppi mbiram bu nekkoon ci ay xéewal mu yóbbu ko ci ay coono bu nekkoon ci jub mu bu tarxiisee am na nu muy demee mu yóbbu mu def lu ko texee dil ak yaa deme noonu nga xam ne ko nit ki war te wóolu fu man di toll ci baax ak ku njub ak ku góorgóorlu war te tax mu wóolu ne eh, nii lay mel ba faw fële lay mujj ëllëg jàngal xanaa day musal nit ki ci pexe moomu maanaam soppi googu yàlla soppi mbirum jaamam wax na inna inna tilaawatal kitaabi mulku wa huwa liman yabghi najaata fulku ne jàng alxuraan mën naa may nit lu gën nguur nguuruk àdduna ñi doon yi buur ci àdduna li ñuy am ci teraanga ak daraja ki wàcc waaye ki xéewal jàpp ci alxuraan di ko jàng boole ca la ca war mën naa yóbbu nit ci daraja ju ëpp doole darajay buur te ne ku bëgg mucc alxuraan gaal la gog ku dugg ci biiram mucc ci weneen bayit mi ngi ko daaneele wa sitruhu ma in ilayhi hatku sutras alxuraan kiiraayam kenn du ko xotti wax na ne karamu munzil bi abada yaquuduhu liman bihi ta'abbada yàlla mi wàcce alxuraan képp sax ci jàng téeréem bi ngir jaamu ko ah, dalay jox teraangam joodul tàggool ah, wax na ni li qaari il quraan xifdul baaqi wa baaqi ma al nee na ku jàng kuy jàng alxuraan yàlla dalay wattu di la aar dangay mucc te mën ngaa dem ba yàlla boo yàlla mbaa yàlla la nga génn ci boolem tënki yi gàllankoor nit ci def lu baax akuk texee di wax na lu bare bari kon ci jàng alxuraanul karim moo tax ci bunt bii muy jàngalee lu aju ci alxuraan ci masaaku jinaan muy faslun fi tilaawati wa maa yata'allaqu biha mi ngi ko ubbee ci ci biir lii ma doon wax muy wax li jàng alxuraan mu ne amma fawaidul qiraati faqad raghaba fiha qawlu baadi man naqat fa man aral qurba am xel dolli koo ca ak ak ak jariño boo koy jàng nga jàpp ne yow la yàlla ay waxal wax ju mu wax ju ne ci yow la jëm bu dee lu ñu lay digal bu ñu la di ñuy digal yow la ko diggal bu dee lu ñuy tere yow la ko tere bu dee ak waar yow lay waar bu dee ab àtte yow ci yow la ko jëmale bu dee tëkku nga ragal moytu la ñuy tëkkoo bu dee lu ñuy dige nga góor góorlu jàpp ne lii yow lañ ko dig boo jaaree ci yoon way tax nga jot ca ah, melowoo ci jàng dégg yàlla tagg ca aw nit nga góorgóorlu ba melowoo nekk ci yow melo yooyu ca gis yàlla di ca ŋàññi aw nit nga góorgóorlu ba melo yooyee nga moytu ko ah, nga jàppit ne alquran mooy mooy xam-xam yépp xam-xam yi ñëw ci àdduna yi ne ci téere yi yépp ci alquran alquran ay cosaanam ci alquran la jóge kon lépp bépp téere boo yor rek bu am njariñ buy jëm buy jëm buy jëmale nit ki ci yàlla di ko dolli ci alquran la téere boobee cosaanoo cosaanu téere ba matière ba ci alquran lañ ko jële bu ko yow na nga jàpp ne kon alquran ji ngay jàng war nga cee mën a dolli doomu aadama yi ay xam-xam yu bees ndax xam-xam yu bees yi ne ci tey ñu ko jàng yëpp ay boroomi xam-xam a ko jukkee ci biir alquran ñoo jàngalaan settantal ko génnee ci ay xam-xam bind ko ci téere mu ne yow booy jàng alquran amal yitte ju tol noonu fexe ba góorgóorlu ci di settantal ak xalaat ba boo mënee génnee xam-xam bu yees boo xam ne xel yi doomu aadama àggagu ca woon tam ne ci alquran nga génne ko ci roy ci gaa yu baax yu njëkk ya ak kilifa yi yu tedd yi nga xam ne ñoo xàll ngir yi mboolam jullit mi jaar fi mu toll nii kon nee na mi ngi soññee jullit yépp rawatina taalibe yi ko topp ci ñu jàng alxuraan te di ko defee nii mu wax nag ne nañ moytoo ñàkk jàng alxuraan kon ginnaaw alxuraan nañ ko moytu nañuy sax ci di ko jàng te buñ ko bàyyi mukk ñu bàyyi mukk jàng alxuraan buñ ko gàddaay mukk Euh, lu mu néew néew rek nit ki na am lu mu saxal bis bu set mu jàng ci alxuraan kem kàttanam donte ñetti xisib nga jàng ci alxuraan bis bu set it na ko saxal di ko jàng mu ne am na ñaari kuréel ñaari xeeti mbooloo yoo xam ne ñoom dañoo wan ginnaaw alxuraan bul bokk ca ñoom benn kuréel bi mooy mbooloo muy sàkk am na ci ñi sàkku xam-xam ñi jàng xam-xam am na ci ñoñ bu ñu xasee nekk ci njàngum xam-xam dootuñ jàngati alquran dañ ko yoon ginnaaw dañ koy teg fële dootuñ ko jàngati ndax téere xam-xam ya ñu nekk ca nap na bi lañ jàpp ne moo leen gën a yitteel ba dootuñ jàngati alquran mu ne yow bu bokk ci ñooña boo jàng xam-xam ak loo xat-xat-xat dee ko boole jàng alquran ñi nga xam dañoo sóobu ci ngirum tasawuf ñi woote ak sufiyankewu topp ay kilifay diine yi yombati ci yoonu yàlla am ci ñu dema dem ba jàpp ne la ñuy def moo gën a màgg jàng alquran ba tax ñu ne ñoom duñ jàng alquran leneen ci leneen la ñuy nekk ci yeneen yëngutu la ñuy def ndax danañ ca amee lu gën li ñuy am ci alquran danañ ca doxe doxin wu gën a gaaw yu ñu waroon a mën a amee ci alquran nee mbooloo yooyu wax yooyee loola bul ca bokk te bul def ni ñoom ndax loole ñuy wax dara du ca dëgg lépp ay nar la noonu da ko waxe ak i neen seytaane moo leen jaar ci bunt boobu rekk ngir gàllankoor leen waaye la ñu wax dara wéru ca lu gën a màgg jàng alxuraan amul ci lii ma wax lépp nag ci la wax ne adim tilawatan lizal kitaabi walaw thalathatan min al ahzaabi fi kulli yawmi duna hijranin kama talabatul ilmi bihi zawuntima wa ba'du man tasawwafu wa za'amu bi anna ma hum fihi minhu a'zamu wa dhalika ad-dalilu zuurun wa kadhib qad gharrahum iblisu fihi faqtarib wax ne laa tahjuranhu watluhu mu'abbida wastanbitan ma shi'ta minhu abada min al-ulumi misla saalihi salaf iz kulluhum min lujji bahrihi gharaq li'annahu maddatu kulli ilmi fi hadhihi ad-dunya bi qawli al-qarni fa kullu wasfin fiihi madxu rabbina ibaadahu tasif bihi wastahjina kulla sifatin qad naha ibada anha wa janibha taxuz rashada kon ci tàmbalib bunt bi da ca soññee ci sax ci jàng alquran te di ko settantal te di ci defaroo ak yokkoo te bañ koo ganna wan ginnaaw bañ koo gàddaay bañ koo bàyyi bañ a jàpp ne am na lu ko gën a màgg ci jëfi yiw yi ginnaaw joxe farata yi ci biir bunt bi wax na ci dina <coughs> bi mu soññee ci jàng alxuraan teggiini jàng alxuraan ku jàng alxuraan yan teggiin la war a am <coughs> euh, sukkandikoo ko ci waxi Cheikh Mouhamadul Yadaali ak daymaani radiallahu anhu mi nga xam ne ci téeréem la sukkandiku li ëpp ci masaalikul jinaan muy xaatimatu tasawuf mu ne aadaabuha mu ne jàng tagg yi jàng alxuraan ci ni ko daymaan yi indee li ci njëkk mooy boo jàng alxuraan na nga ànd akuk laab na ànd akuk laab bu la jàpp waree na jàpp bu la sangu farata waree na nga sangu farata kon na am laabuk toj nanga ànd ak laabug sobe maanaam nanga nga set wicc ci sobe na nga mucc ci sobe ci sa yére yi nga sol ak barab bi ngay jànge bi ngay toog ak sa sa sa yaram aadaabuha inda alfata daymaani tatahurul badani wal makaani nanga saxit ci di setantal maanaa yi ngay jàng aaya yi ngay jàng dee ko settantal di jéem a dégg maanaa yi te ànd akuk dal te sa jëmm bañ a nekk di yëngatu ak baj-baj yi ndax wax yàlla ngay jàng kon àndal dal te na nga soccu ba sa gémmiñ sa wécc nga bañ a am xet gu naqari gu génn ci sa gémmiñ ndax kuy wax wax yàlla di tudd yàlla sa gémmiñ dafa war a sell set ndax malaaka yi dañ lay déglu jinne yi gëm yàlla di déglu nga toog mbooloo mu lay déglu euh, loolu lépp tax na nga war a nekk ku soccu ba sa gémmiñ set wicc misluhuma tadabburul maana maa sakinatin maa stiyaakin shuria euh, nee na bokk na ci teggin yi ku jàng alquran nga jublu xibla nga toog jublu xibla euh, te ànd ak ragal yàlla sëgg sëgal sa bopp maanaam jëmale say bët ci li nga tiim di ko jàng jëmale ko suuf ci sa barabu sujjóot te ànd ak wegu te bañ a nooyal sa baat mel ni kuy neexantal di nosal ak a def yi xeetoo yooyu ndax dañoo bëgg ci kuy jàng alquran mu dëgëral baatam jàng jànginu góor waaye bu mu nooyal baatam mel ni jigéen ak di randamtal mooy di euh, diri baat di xëcc ay araf lu ëpp la mu ko war a xëcc ak di gàttal yi mu waroon xëcc mel ni kuy way nee na lii lépp bokkul ci teggin ku jàng alquran moo tax mu ne wa kawnuhu mustaqbilan maa xushoo mutriqa rasin bi waqaarin laa xudoo is yundabu tafxiimu ay an yaqraa ala qiraati rijaali jahra wala yakun xaadica sawtin ka nisa wa zi tarannumin bi laxnin faqisa ci biir teggin jàng alquran tam nee na ku jàng alxuraan da ko war a jàmm jàng ngir jëmm yàlla rek jàng alxuraan ngir yàlla ngir am tuyaa bay ëllëg ak setantal maana ngir dolli ci ngëm akuk njub akuk defaru waaye waru koo def ngir njistal bëgg ñu mën a ñu dégg baatam bu neex akuk mën a jàngam akuk njàmbaareem akuk mokkalam ak yu mel noonu wala mu di ko def ngir bëgg bëgg caa am alal yuñ ko cay jox wa an yurida wajha zil jalali bihi bila riyan wa naylil maali ci teggin jàngal xan tam nee na ki jàngal xan war naa am war naa am yar ak teggin xam ne waxi yàlla lay jàng téereb yàlla la yor lu yàlla bind lay jàng kon day mel ni ku toog jàkkaarlu yàlla di wax ak moom ku mel ni ku yàlla jox mbind mu mbind mu toog ci kanam yàlla di jàng mbind moomee yàlla bind mu ko jàng yàlla di ko dégg kon ku mu jàppe boppam ni ku nekk ci taxawaay bu mel noonu wa an yakuna zata addubin maa qur'ani rabbihi kama qad waqaa mustahdiran fi zihni annahu xadar munaaji al mawla ويتلو ما سطر وليك قارئا كمن يراه سبحانه ليس لنا سواه إذ كل من لم يره لأن من لم يره بالعين لأن من لم يره بالعين فإنه ينظر كل عين kon lii lépp bokk na ci teggii ni jàng alxuraan yi nga xam ne indi na ko ci téere bi nga xam bu ñu ko seetee war naa mat fukki teggiin buñ ci boolee waaw fukki teggiin daal ak benn war na koo lim war naa dugg na ci biir bayit yi nga xam ne jàng nañu ko kon yooyu yëpp kii jàng alxuraan war na cee bàyyi bàyyi xel kon teggiini jàng alxuraan ab tomb la ci biir bind bi sëñ bi indi ko ci Masaalikul Jinaan am na benn tomb bu mu ci indi mooy jàng alxuraan ci boppam bu ñu ko dee def nan moo ci gën ndax boo ko dee jàng euh, nga di ko jàng-njàng mu teey te leer te neex moo gën su boobaa la ngay jàng du bari euh, nga boole ko di ko setantal walla la gën mooy ngay ratatati jàng njàng mu bar te gaaw ndax nga mën a jàng lu bare baree bari loolu lan moo ci gën ñaar yooyu ñaari njàngin yooyu tartiil ak alxadar alxadar wala al isra fi lqiraa ñaar yooyu lan moo ci gën jàng mu tey te diib te leer ak njàng mu bar te gaaw lan moo ci gën boroom xam-xam wut nañ ci lan moo ci gën am na ñu ne njàng mu teey me te diib te leer moo gën am ñu ne njàng mu gaaw mee gën kenn ku nekk ci ñoom la nga wax am na foo ko teg foo ko sukkandikoo ci alquran mu ne waxtalafu hal afdalu tartiilu aw aksuhu kullun lahu dalilu wa rattilil quran tartilan jala dalila tartilin li man xad faddala wal amru bi zikri kathiri l aya dalilu aksihi iqtafi riwaya mu ne borom xam-xam yi wuti nañ ci jàngal moo ci gën mu teey te leer te diib moo gën walla mu gaaw te bari mu ne kenn ku nekk am na foo teg solo ñu wax ne njàng mu diib mu teey te leer te neex moo gën te wér ñu ngi teg solo ci li yàlla wax ne warattilil qur'ana tartila ci sootul muzammil boo dee jàng alxuraan na nga ko teeylu jàng ko njàng mu diib te teey te leer te wér te neex waaw soo koy jàng soo mënee jooy nga jooy soo ko mënul nga jooy jooylu ndax teew teewlu ne wax yàlla ngay jàng lu mag ngay jàng euh, kon ñi wax ne diib gee gën foofu lañ ko teg ñi wax ne baral gi gën ñoom dañu ne yàlla moo wax ne yaa ayyuha alladina amanu zkurullaha zikran kasira yéen ñi gëm yàlla dee leen tudd yàlla lu baree baree baree bari ñu ne kon boo ko dee baral ci la bari gi di mën a ame kon nee na ku ci nekk ci ñoom am nga tegtal boo sukkandiku waaye nag am na loo xam ne ñoo ci dëppoo daje ci ñoom ñëpp nga xam ne yow loo ci mën di def it bàyyi xel ci loolu moom na ci bokk لكن عماد الأمر والقصد الأجل هما تدبر تفهم أجل واتفقوا طرا على كونهما sunnata xayril xalqi laa tamsahuma mu ne waaye nag boo dee baral ak booy diibal lépp ci yam boo dee jàngal xam daal del settantal maanaa yi di jéem a xam li yàllay wax ci alxuraan nga di ko jéem a xam loolu moom loo mën di def na ko ci boole bu di njàng mi bare na ànd ak setantal bu teeyee na ànd ak setantal ndax ñoom ñëpp bokk nañ juboo ci ne setantal googu sunna la sunna la sunna la maanaam mooy lu yonent bi daan santaane te daa ko def dikk ni ci xadiisu an ummil muminina xafsata رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها soxna Aïchatu soxna Xafsa soxna Xafsatu doomi Seydina Omar ibn Xataab radiyallaahu anhu nekkoon kenn ci waa kër Yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam nee na yonent bi daana jàpp wenn saaru alxuraan di ko jàng di ko diibal di ko teeylu di ko tajwid di ko diibal di ko diibal di ko diibal ba yàgg ca lool ba saar yi muy jàng sax yàggaay bi dana tax mu mel ni moo gën a gudd yeneen saar yi ko gënoon a gudd ca kaamil ba saar woo xam ne boo koy xool ci kaamil bi ay li mu ay aayam am na beneen saal bu ko ëppi aaya waaye ci ni mu koy teeyloog ni mu koy diibalee ni mu koy rafetale da cay yàgg ba mën naa am kenn ku jàng saal bu gën a gudd woowu njëkk ko noppi loolu kon euh, day wane ne di jàng-njàng mu diib tartiil loolu sunna la te loolu day gën a dëgëral waxi ñu njëkk ñoo ñëw <coughs> kon loolu kon ki jàng alxuraan daal mu di ko teylu di ko settan di ko rafetal di ko diibal mbaa mu di ko baral te baral ga bu mu tee njàng ma wér te rafet te leer te lu ci mën doon loo ci mën def na ànd ak settantal kon loolu la wax ci boobu njàngeen jàng alxuraan itam mu ne ndax boo ko dee jàng nga tiim nga di ko tiim di xool moo gën wala nga di ko tari moo gën loolu nee na boroom xam-xam yi wuti nañ ci lan moo ci gën am na ñu ne nga tiim ko di xool a gën am ñu ne euh, nga di ko tari mu ne euh, mu ne waaw wa faddalu waaw moom tax dafa wax ne boroom xam-xam nee nañu li gën daal mooy di tiim xool di jàng moom moo gën loolu tax du wuute moo gën lañu wax wa faddalu qiraatan bi nazari eh, fi mushafin ala siwaahu fanzuri borom xam-xam nee nañu jàngal xam la ci gën mooy nga tiim ko di xool nga tiim kaamel bi di ko xool loolu moo gën boo nekkul ci julli kon moo gën nga di ko tari Eh, daal di loolu eh, fa kullu ma fi mushafin qara'ta li wajhi rabbika axi xafafta xafafta an walidayka fi umuril qabri fi umuril qabri bi isni sil doona nukri nee jàng alxuraan di ko xool moo gën ñàkk koo xool ndax bokk na ci ngeen di jàng alxuraan boo ko dee xool saa yoo tiimee alxuraan kaamil di jàng di tiim di xool rek bu fekkoon ne say waajur ya ba nekk ca bàmmeel ña nga leen doon mbugal diir yaa ngi tem kaamil bi xool dañ leen di woyofaral mbugal ma ba ba ngay bàyyi njàng ma te itam alxuraan ku koy tiim bi ko jàng di ko xool ci say bët yàlla na la bàyyee say bët nga am bët yu neex waman lil qur'aani qara bi nazari mattaahu rabbul wara bil ba basari muxaffifan an waldayhi fil azab wala yakunaani li shirkin fi intisab nee na képp koo xam ne yaa ngi tiim alxuraan jàng di xool suñ borom dana la may gis bu neex te la woyofalal mbugal sa ñaari ci seen bàmmeel donte sax ay yéefar lañu yonent bi sallallahu nee na tiim alxuraan di ko jàng alxuraan nga di ko jàng di ko xool gëne na nga di ko tari bañ koo xool nit jëf farata gënee naafila jëfi farata nit ba tuyaaba naafila noonu jàng alxuraan di ko xool gënee euh, di ko tari bañ koo xool kon loolu wax na ko ci tiim alxuraan di ko xool di jàng euh, te nañu xool xool ko rek ubbi kaamil xool rek sax bàyyi loolu ci ak jaamu yàlla bokk donte jàngoo ci benn aaya xëy suba ba ngoon xooloo ab kaamil ubbiwoo ko xool ko loolu sax wax nañu du wax nañu ne du lu du lu du lu gën waaw fa adamu nasari kulli yawmi fi mushafin kuriha indal qawmi mm, waaw li mu wax ci xool alquran xool ko rek nii ak jaamu yàlla waaw bayit wa déedéet toadu qurbatan la daa fa nazratu waaxidu fi lmusxafi toadu qurbatan la tiim alxuraan daal xool ko rek tiim ko rek xool noonu rek ak jaamu yàlla kon loolu la wax ci waxaat na it ci alxuraan boo ko dee jàng ndax di ko setantal di dégg di xam li ngay jàng moo gën wala ngay jàng rek ndax ku ko jàng di ko xam di xam di setantal dégg maanaa yi moom rek am tuyaaba wala kii jàng te xamul sax du du am tuyaaba wala kook dana am tuyaaba mu ne nag boroom xam-xam yi ñu bari ci ñoom nee nañu jàng tuuti ci alxuraan te settante ko dégg ko moo gën nga jàng ci lu baree bari loo xam ne dégguloo ko setantaloo ko kon mu ngi dugg ci buntu setantal jàng alxuraan di ko settantal wax na kon ci setantal ak dégg li ngay jàng mu ne wa faddalu qillataha bil fahmi min kasratiha bi gayri fahmin istain leen jàng tuuti ci alxuraan lu néew ci alxuraan nga jàng ko te setantal ko dégg maanaaya moo gën nga jàng lu bari loo xam ne setantaloo ko wa qiila inna gayra zi tadabburi laysa lahu ajrun bila zil am na ñoo xam sax nee nañu ku jàng alxuraan ko setantal doo ci xam dara ci maanaa du amub yool waaye wa qiila bil si am nañu wax safaan beneen déedéet nag alxuraan nag mu màgg na màggaay boo xam ne tudd araf yi rek nag soo ko defee am ci am ci yool boo setantalee boo déggee maanaa mag boo ko déggu waaye nag wuute googu ci kuy jàng te dégg xamoo li ngay wax ndax danga ci am tuyaaba doo ko ci am wuute ga ma am ci ku koy jàng ku ko ngir mokkal bu dee ku koy jàng ngir mokkal nag moom bu bu setantalee dégg maanaam ak bu setantal lépp day am tuyaaba wa qiila bil aqsi walakin al xilaaf fi xayri zi e, taallumin bila xilaaf mu ne am na fukki saxaaba ak ñaar yoo xam ne dëppoo nañ ci ne tiim alxuraan di ko jàng di ko setantal moo gën lu baree baree bari ci xeeti jaamu yàlla ñun ñuy def way tamaat yabul min sax mi sax bi ala tafdilihi ala kathirin omila wa baaduhum allalahu bil kawni ashgala lil lisaani wal aynayni wa qalbihi wa yadihi wal xijri maa tadaburil maani fadri fukki saxaaba ak ñaar dëppoo nañ ci ne tiim alxuraan di ko xool di jàng moo gën euh, lu bare bari ci li ñuy def ci xeeti jëf yu baax ndax kii alxuraan yor alxuraan di koy tiim di jàng daa bari ay tuyaaba yu muy am daa bari ci jëmmam ñuy bokk ci jaamu yàlla gi ndax làmmiñam yi jàng ci la bokk bëtam yi xool ci la bokk xelam mi xalaat ak xolam bi tooy ci la bokk loxoom bi téye kaam ci la bokk poojab bi mu teg kaamel bi ci la bokk xelam mi setantal ci la bokk kon néewaana jaamu yàlla goo xam ne yooyu yëpp day àndandoo di ca ànd di ca bokk te loolu day day ci jàng alquran mu ne euh, sayidna abdullah ibn abbas radiyallahu anhu na toxal nañ ci ay waxam mu wax ne ci jàng alquran di ko setantal ni mu gëne ñàkk koo setantal mu ne julli ñaar raka yu digg doomu yu yam rek yoo xam ne guddul gàttul ñaar rakka yu yam rek nga julli ko euh, jàng ci alxuraan joo settantal moo gën nga fanaane naafila guddi gi yépp te la ngay jàng ci alxuraan settantal wa naqalu an waladil abbaasi tafdila rakaatayni bi iqtisaadi maa tafakkurika bil fuaadi maa qiyaami kulli laylin wal saahin bi gaflatin fa laazim ittihaad ibnu abbas dafa xam ne rakaataani muqtasidataani xayrun min qiyaami laylatin wal qalbu saa kon loolu wax ci bay jooyu kon wax na ci settantal alxam boo ko dee jàng di ko settantal am solo gi am solo ak yitteel gi mu yitteel kon lii lépp daal wax na ko ci jàng alxuraan ak i tegginam ak ñi koy defee